مني إليه خدمة قد لا سمات رودته إلى الخيام عسمات ردي عني سبته جيلاني علي رضوان الذي العلاني jikko ji doon wax sànq di ko waxal soxna Maam Faati Mbàkke Sidi Serigne Cheikh Mbacke mi moo ko ji jiitu moom bu ko neexoon croiser les bras di xaar addi Serigne Touba nee na pont Faidherbe bi maa dem ba ñang bàyyi ma déwétal ma dikk ña saa bu ñu see tëj pont bi saa bu ñu mësee wax ne kenn du fi jaar saa su ma samba daan ñëw maa dem ba ñang day bu max police yi ne leen sama yaakaar mooy yegg si moo tax nga dégg wolof saa buy xuloog nit nekkul amul ma samba amul ma demba ci pont bii rek la xewee kon moom dëkk bi mu ñëw dëkkam la boo wàccee pont bi démb la ma sëñ dam ne kër gii Cheikh Moustapha Samba ko moom baayam boo demee ci asalam ya ay kër Cheikh Moustapha ngi fa bàyyam fu mu fanaan titre foncier la moo ko moom waaye moom mustaxaar loolu liggéey la xam lam ci am ca wërsëg muy di ko dimbalee taalibe yi sëñ Cheikh wax ne fifty Ahmadou Gaye nee na murit nga de nee na taalibe nga am nga yar ah alaaji nee na murit saadix nga alaaji kan nee na murit saadix la alaaji ka nag bu ne murid saadix nga danañ ko nangu ndax li tax ku la gën kala yar moo la gën ku mel ne Serigne Saliou dootul am ci àdduna Serigne Touba nee na les faveurs que j'ai de mon Seigneur n'existaient pas dans cet univers c'est en cela que j'ai réussi faveur yooyu nag kenn jiitu ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké nee na alxuraan màkka la wàcc yonent bi jóge màkka jëm madina yonent bi jóge fi Ababacar donn ko Omar donn ko Omar donn ko Ousmane ko Aliou donn ko. xut bu samaan yi wàcc ba ak ci sëñ Tuba waaye bi alxuraan wàccee Makka ak léegi li mokkale ci kër Serigne Saliou bindee kaamil kër Serigne Saliou amul ci benn penc kon Serigne Saliou Serigne Tuba rek ko xam Serigne Cheikh moom wax ne moo ngi gërëm baax Ahmadou Gaye Fifty di ko sant di ko gërëm ngir mbaaxam ak yaram ak ak taalibeem nee na yow fifty li ko gën a neex ci yow mooy jaxasoo gi ngay jaxasoog ñoom ñii ñi njaboot sëñ Tuubaa taxul la benn yoon taxul benn yoon nga bew ci seen kanam maa nga soppi doxalin nee na fif ci ma ñu xamoon démb lu ngeen jaxasoo ngay gën a wone ak taalibe rek ci ñoom ñoom ñii nag Serigne noppi na ci ñoom maam Thierno Birahim keroog bi ñuy denc Serigne Touba dañ ko ne sëñ Mbacke Bousso moo ko yaay sunu jëwrin te ab jullit saa bu fi dañ ko war a nga seere taxawal nii ni nga seere ko maam Thierno ne askan wi ñu bokk moo ci njëkk juddu gën baayam daane askan wi ñu bokk moo ci njëkk a tanay mbokkam dimbali leen kon ñoom ñii sëñ Tuubaa dimbali na leen ba noppi lenn rek la leen mën nit mën a won ba ñu koy yëg mbaa ñu ciy bég mooy ak taalibe sëriñ Cheikh nag nee na nee na fifty mi loolu rek la wone xam na moom benn bëgg-bëgg la amee mooy sëriñ Saliou waaye jikkoy murit moo ko dal Cheikh Rafal daane woon ab murit day gëm kenn bëgg ñëpp te moom mi Ahmadou jikko jooju moo nekk ci moom sëriñ Cheikh wax ne bis bi yow mi koy def yow mi koy def ñoom nga koy defal ndax sànq rek moom sëriñ Cheikh daa toog fii jooy jàng Nuuru Daarayni li ko tax a jooy. mooy bis bis ni ki ci guddi. mooy bis ni ki Roñaan benn benn boo xam ne. daan benn couloir boo xam ne. rectangle la rectangle la. largeur bi bi. day 1 euh, mètre. day 1 bi longueur bi. di 5 mètres dañ koo fatt lépp foofu la ñu fanaanoon foofu la ñu fanaanoon. Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Touba fanaan Serigne Touba fanaan fa. ci nattu ci ay nattu. xëy suba ba ko ci oto Roñaan génne ko ko fii fii ci bureau bi conseil privé bi yëpp conseil privé yëpp taxaw le conseil privé le conseil a été réuni a été réuni au palais du gouverneur de l'AOF Afrique, occidentale, française, française n'ayant pu trouver, pu trouver motif valable, aucun motif valable le colonisateur, le colonisateur ne peut qu'inventer qu des prétextes, des prétextes facilieux, facilieux pour, la pour la déportation du marabout, du marabout non, violent, non violent vers le Gabon, vers le Gabon. 84 fi daje waaye kenn rek njëkk a dem Gabon ba mu demee ñëpp ne du ñëw waaye eh, eh, ñibbisi na aller retour ñibbiseen googu nag moo indi suñu xéewal yii nii ñu toogee nii doo xam xàmme sëriñ bi doo xàmme donga yi ñëpp a sañse ñëpp a leer ñëpp am xaalis grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kon nag sëriñ Cheikh nee na bis bi Ahmadou ñoom ñii ñoo ko waroon woote ñoom ñoo ko waroon def nee na nag moom nee na moom. bu sañoon bu sañoon lépp moo koy def waaye nag ku ne xam na ni barki démb rek ci la waajuram Cheikh Moussa Massamba uh, fekki baayam Cheikh Moussa Massamba ko waaye kon kon bis bi luñ fiy def moo koy def yëkkati na nag téeméeri junni barkeeloo ko ci bis bi ndax nee na lépp luñ fiy def moom mii moom la waroon moo ko war a def Cheikh Massamba musul ni sëñ Tuubaa yaay sama mag yaay sama mag da koo ne yaay sama baay yaay sama sëriñ yaay sama nijaay ma yaakaar la adduna ak alaxira moo tax nag 1917 Cheikh Ahmadou Bamba daa woote njaareem mag ñëpp daje mu daane ma samba mu ne ko mbàkke mu ne ko bëggeewuma ko nii de na góor ñi demee ne jimee jimee di jigéen dem càmmoñ ngeen jël buum doxale ko ci digg bi doxale ko ci dëgg bi nee na sëriñ bi génnaat daan ne yàlla saa borom nee na yàlla saa borom nee na wàccee na ma wàccee na ma ci bépp liggéey doonatul ku jóg doonatul ku jóg. agsi ci man agsi ci man. doonatul ku jóg doonatul ku jóg. may wax ak moom jaawale nii jaawale nii. mu mu jiibu. amal la sa sin amal sa sin. ilal jinaani ilal jinaani. bi xayri madasin bi xayri madasin. dëkkaale nag yàlla man Cheikh Ahmadou Bamba. en 1912 ba keroog may tàbbi àjjana dootuma tàggoog moom daan na nag yàlla nee na bis ni ki tey. kuy wax waxal ak ma samba kuy jox joxal ma samba kuy dénk dénkal ma samba ku mu neexul abal ma kër bi ak dëkk bi ah loolu nag Serigne Cheikh. lii mu defal la fifty. lii mu defal fifty. tabaski bi paase. tabaski bi paase. ñun ñëpp ñun ñëpp. lii nag wax nag. boo koy wax boo koy wax. te eh, amul seere te amul wax matul di wax de. ndax ko defaloon ndax ñi ko defaloon. ñoo ngi nii ñun ñii la moom mi ko defoon moom mi ko defoon. mi ngi nii moo ngi nii toog. Serigne Abdoulaye nee na Serigne ne fu mu ne junni yi téeméeri junni yi. moo ko barkeeloo fifty bi. noo ñaan nag ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Touba yàlla nañ ko bark màggale téeméeri at loo man ren yàlla nañ ko mën déwén ci barkeb Serigne Touba Serigne Cheikh solution moo la jox téeméeri junni addi Serigne Bamba waaye nag yow lu la jox delloowaat nga ko njaboot sëñ Bamba yow lu ñu la jox delloowaat nga ko taalibi sëñ Bamba nee na da koo barkeeloo ci teraanga yi ñuy def ci bis sëñ Tuubaa bi jërëjëf sëñ Cheikh léegi léegi rek nga jàng nooru daare ni jooy yëkkati ñaar fukki junni ne nañ ko séddale njaboot sëñ Tuubaa teg ko ci loxo sëñ Mbàkke murit mii loola nag mooy wane ne yow sëñ Tuubaa ngay dund sëriñ Tuubaa ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa nga am Seex Masamba sa maam ji jëppiwu la sa baay Seex Mustafaa gërëm na la ba liggéey da ngaa wëlbati ko jël oto bu bees tàq xam nga ne sa baay am nay oto sa baay am nay kër sa baay am na lépp waaye da nga ne damay jox sama baay addee damaa bëgg am gërëm nga yëkkati oto bu bees tàq jox sa baay sa baay gërëm la sa baay ñaanal la Modou Mamoun. Euh, nee na fifty mille. hôtel yi. hôtel yi. def na ci sept millions. def na ci sept millions. jërëjëf. wax nag ah laa ilaaha illallaah wax nag. bu seere baaxul bu amul seere baaxul. démb maa ñëw. maa ñëw. dugg ci réception yi. démb dugg sept millions la def ci hôtel yi. réception bu ne. réception bu ne. maa fa dem maa fa dem. sop sop. ba laaj ba laaj. ma ne fii xanaa ma ne xanaa. fifty lim fi fay bari na biñ ma waxee ñett yëpp biñ ma waxee ñett yëpp. bi ma ko évaluer bi ma ko évaluer. 7 millions 7 millions yi. 40 mille ci manqué 40 mille moo ci manqué. ragalul de kon nag moom kon moom moo Amadou. li mu am li mu am. def na ko ci sëñ Touba restaurant bee. restaurant bee. ubbiwu ko ubbiwu ko. ngir di jaay ngir di jaay. di am bénéfice di am bénéfice. ndax nee naa ko ndax nee naa ko. bis bu set bis bu set. bë bénéfice bi restaurant bi génne. bénéfice bi restaurant bi di génne. dina ko jox àpp mbàkke mbàkke. daan ko jox mbàkke mbàkke. mbaa jànkatu xasida mbaa ab communicateur cër bu moom leen na ko ñor moom leen na ko ñor nit ñi daje fa rek nit ñi daje fa rek nit di waxtaan kenn ku ne am kenn euh, dëgg la de nee na restaurant bi koy doog ubbi dafa dafa woo ñoom awa ne leen ne leen képp koo xam ne képp koo xam ne Touba la jóge Touba la jóge muy ab sëriñ muy ab sëriñ mbaa muy ab donga mbaa muy ab donga daara mbaa ngeen gis ko sax mbaa ngeen gis ko sax mu sol ab baylaat mu sol baylaat mbaa tirki njaareem mbaa ab basoy bu bu amee bu amee ak bu amul. ak bu amul na ngeen ko jox lu mu lekk ceey moo tax moo tax. saa boo fa demee saa boo demee. serveuse ya fa nekk serveuse da ngay gis da ngay gis. yitte ji ñuy am yitte ji ci yow. kenn ci ñoom kenn ci ñoom. bis bu ñàkkee kersa bu ñàkkee kersa. nit ku dëkk Touba nit ku dëkk Touba. fifti da koy dàq fifti da koy dàq waaw góor. murid la loolu nag. buñ dajee ci bis yi buñ dajee ci bis yi. day jar ñu koy dëgg la. fifti ñaari bis la am fifti bi sëñ Saliou ñibbi bi sëñ ak juróomi fanu septembre septembre. di ñaar rakkay ndar at mi yëpp at loolu la koy dajal loolu la koy dajal. keroog damaa nekk France. mu ne ma fii ma fii may wax am naa bor. sànq am naa bor. de vingt mille franc. damaa lebaat. ngir fay boy bi. waaye incha allah fanu koor gi. juróomi fanu septembre. ñaan naa ci Serigne vingt sept millions. te incha dana ma ko jox. te danaa ko ci def te nag ku fi ne dem ba tey xool dal bin biñ la dalal. dal biñ la dalal. xool xool. xewlu gi xewlu gi nga fi xewloo. kon da nga gëm ni. da nga gëm ne. Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke. dimbali na ko dimbali na ko bu wér a wér. kon nag moom ñu ngi koy sant ñoo ngi koy sant. ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy gërëm. yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla sàmm ko. yal na ko yàlla aar leneen li ci des nag. nee na dafa bëgg dafa bëgg. bu nu jullee tàkkusaan buñ jullee tàkkusaan bu nu jógee ci jullikaay buñ ba ñun ñëpp nag ñëpp nag ñu ànd maase nag dem dem ca kër eh, eh, eh, yaayam ca kër yaayam ñu def fa cérémonie ñu fa cérémonie sant sëñ fas yéene sant sëñ Bamba ba fu ko yemale ba daal moo doonoon moo doonoon kaddu yi cant gi nga xam ne nag cant moo jógee ci fifty jëm ci sëñ Cheikh kenn du ko waxee fii kenn du ba yegg ci baas ba mbooloo mi yëpp toog fifty sant ko sant sant ko gërëm ko waaye Modou Mamoun yow it ah nee na Amadou nee na frère yéen ay wëllëreem ngeen te teew ngeen frère Wilane yi ak Mangane frère Mangane nee na moo ngi leen di sant waaye moo ngi leen di gërëm ndax seen teewaay neex na ko lool nee na chaque année da di ñëw ànd ak moom ci bis bi waaye Amadou Mamoun mi ku ñàkki ñaan la Serigne Modou Mamoun mi nit ku yàlla baaxal la. sëriñ Modou Mamoun Lo mii nit koo xam ne da ngaa yor puso di ñaw la waaye yorul lay set di xotti ndax lu baax rek la bëgg lu baax rek lay def waaye lu baax rek ci lay xëy ci lay gont waaye ci lay fanaan ndax leer na bari na luy xew ak bari na luy am wallahi azim ci ay xalaatam ak ay nasam la koy defee muy nit ku yàlla baaxal te gis nga jëmm ji ku jara bàyyi xel la waaye léegi bi may seere li gën a neex ci seere bi Amadou dama ne Modou Mamoun Lo sama xarit la xam nga bis bii Modou Mamoun su ko neexoon li Mohamed si laa wax démb mooy dëgg su ko neexoon ñu toog Paris ba mu des une semaine ñu ñëw màggal si waaye dañoo ne bis bii du ñu toog mukk pari ndax gor su baax si dañuy daggal suñu biir arriéraat ko ngir jël vol ñëw fekk si bis bii ndax nit ki kat boo xamul ni lay def ni la def rek a tax te yow yow yow yow mënu laa fay de. lii rek lan mën ak yow loolu ne yaa ci gën loolu ne yaa ci mën te àndut ak bruit. beneen bi rek laay wax xam ngeen kii nii ko yàlla defal teraanga mu koy def mu koy def si bisu sëriñ Touba bi man a xaw ma ku mu bett waaye man Baye Diarra bettu ma parce que Serigne Touba bettu ma ñaari rakk yi bu ma jublu deux mois. barke sëñ Tuubaa sama loxo bii la yoroo kii fi ma jaarak moom bu ma ko waxoon. moom mi ñaar raak yi bu ma saa ñëw day jël benn pot meew xar ka bu amee fukki dërëm dugal si bu amee ñaar fukk dugal si bu amee juróom dugal si kondaane kondaane pot meew mu demee ba ñaar raak yi ñëw mu daajik ak ay mbuus. takk ka seddal ka ba mu sedd def ko si paan bu ku fi ñëw boo delloo daa xam ne ñëwoon nga si ñaar rakk yi yow joo fëri yow nii la nga mel mel tey nag say gan lu nu bëgg loolu la nu bëgg lu nu wax loolu la nu wax xëccoowu nag sëñ bi da nga wax lu am importance xëccoowu nag moom xatalul leen lu ngeen bëgg wax leen ndax kii lu ngeen ko wax ñun ngeen ko waxal parce que du sàmba alaar moom it muy Serifa dafa yónnee ay kaddu yónnee tamit ay kaddu yoo xam ne kaddu yi la ndax nee na li ko tax a jóge Ndakaaru ba Ndar nee na Ahmadu sa jëmm ji rekk tax Maodo Mamoun Lo Serifa mee toog nee na li ko tax a Ndakaaru ba Ndar jëmmi Ahmadu mi rekk la nee Ahmadu sant na la bu baax. nee na gërëm na la bu baax nee na am na ci yow mbégte lool loola wax sëñ Alaaji Kan ne na ma ko wax mu wax la ko ndax nee na neex nga àndal lool as gor nga ab jullit nga ab taalibe nga te yow sax dara àndut ak bruit lépp lay def jëmmi yàlla rek a tax te kenn du ko yëg nee na lay sant nee na moo ngi lay gërëm nee na laa fay ndax yow de ànd nga ak moom ànd goo xam ne ànd sincérité la. ànd nga ak moom ànd goo xam ne ànd teraanga la ànd gor la ngay nit ku yàlla baaxal nee na sant nala gërëm na la waaye njabootu Cheikh samba gii Mamoun njabootu Cheikh Massamba gii teew soxna yu yiw yii soxna yu am personnalité ñoom Marème ñii nga xamante ne ak mama ay miya ñoom it ñoo ngi leen di sant ak joor ñoo ngi leen di sant bu baax ndax yéen it lii ngeen def lu rëy la ngeen bàyyi seen bàyyi seen yitte jóge ba ndakaaru démb ba tey ngeen di yëkkati ay 10 000 di ko maye di baatare nit ñi ngir mooy mu fi jooy de mooy taawam moo ko jàpp moo ko jàppale moo ko bëgg dëgg la de nee na fifty nee awa mën naa tukki juróomi at bàyyi alalam ak liggéeyam lépp jox awa te nee na saa su ñibbisee lam fa bàyyi woon day yokk waaye dara du wàññi ko awa baax nee na awa benn bëgg-bëgg la am ci àdduna mooy Serigne Saliou bu ca tegaatee keneen mooy Ahmadou Gueye Fifty na am jàmm na am ndam Fifty wax na nag Serigne Cheikh Sëñ Mbacke ak Sëñ Moussaïn yéen njaboot Sëñ Touba yéen na yéen dogul soxna wa yàlla jàppale ko sàmm ko aar ko may ko borom kor bu baax bàyyi ko mu jooy xool.